بسم الإله ينقل Mbacké waa Touba ak képp koo xam ne jóge na si région bi maa ngi lay nuyu nuyu bu sell maa ngi xamal ni bég naa si yéen li wóor te wóor mooy am na waajoo xam ni dafa doon wax dafay ñëw fii ndëkk ma jiitu may ñëw fii jël na ay bagaasam ba dem rusloowu leen ma bëggal ngeen ma te naa kan ma jàppe mooy Cheikh man Bamba ngeen ma jàppe kon jërëjëf jërëjëf sëñ Touba jërëjëf sëñ Touba kon maa ngi sant Serigne Mountakha Mbacké dama leen di nettali ni man damay dund serigne bi fu ma toll dund bëgg serigne Touba gëm serigne Touba doylo serigne Touba yaakaar serigne Touba lolo tax bima xeyé dama ni bala tambali nan lay tambalé moy damay dem ziyaari soxna Jaara Buso Poroxaan la jóge ma tàllal sama loxo soxna jaara wax sama bëgg-bëgg jëmale ko ci réew mi jëmale ko ci ndaw yi jëmale ko ci soxna yi soxna yi jigéen ñi jàppaleen ni foofu laa fasanteeg yéen kóllëre xam ni kóllëre googu dara du ko dog ma ñëw sëñ mu taxaa dalal ma dal bu dalal bu rafet maa ngi koy sant di ko gërëm maa ngi sant kilifa diine yépp këru diine yi fu ma dem fu nekk teeru nan ma teral na ma kon bég naa bu baax a baax jërë ngeen jëf li ci des mooy ma wax ci réew mi Macky Sall yàq na réew mi réew mi tey foo làmb mi ngi metti ndax foo dem mi ngi metti rawatina justice bi ñépp ñi ngi ŋàññ justice ndax lan dafa jël loxoom tekk ci justice di ko defloo di ko dindiloo ba Sénégal kenn gëmatul justice man nag danaa fexe ba yaakaar bi nit ñi am ci justice mu dellu ci nan laa koy defee ci ay pank yu ci ay ponk yu bëri bu bi président de la république dootul Don, président boo conseil supérieur de la magistrature président de la république Dortul nommé ministre de la justice qui ko xamni dafa fessel andam ci ben parti président de la république dortul nommé ministre de l'intérieur qui ko xamni dafa fessel ni Bokuna na ci parti président de la république dana lu ba lepp lo xamni ci indépendance justice la jëm dana ko fessel. dans wote waxtan bu les plus noirs ñu war justice ñu def ka danaa conseil supérieur de la cour des comptes ma jox indépendance am mu man doxal ba limo seytu dara du ko xajamal président de la république suma yalla maye mayee ndam dootul doon chef de parti président de la république su ma yàlla mayee ndam dootul jël alalu réew mi di ko séddale ay njabootam ay xaritam daanu yor réew mi yor gu rafet samay famille samay xarit samay am di jàmb du nu jël di pàccoo réew mi damay jël lépp delloo cër bi réew mi ndax réew mi lu waaye man gannaaw yàlla ñoom la président Macky Sall nak dafa lolu ku ku la tax nga folu day yomb mu wax mi daf ko jëful na ni gestion sobre et vertueuse gestion bob, elle n'est ni sobre ni vertueuse c'est une gestion qui ne fait que favoriser l'intérêt personnel. Tous les jours, l'intérêt général est piétiné. On ne reconnaît plus le Sénégal des valeurs. On ne reconnaît plus le Sénégal de Shermat Bamba. On ne reconnaît plus le Sénégal de Mambelaj Jbalik. On ne reconnaît plus le Sénégal de nos illustres chefs religieux. On ne reconnaît plus le Sénégal de Yassine Tjandoum. C'est un Sénégal sur lequel tout le monde s'interroge. La démocratie est en recul grave. Les valeurs sont piétinées. Les Sénégal s'ouvrent dans leur chair. Pourquoi Parce que les jeunes n'ont pas de travail. Les femmes continuent à se battre pour survivre. On est dans un monde sans lendemain avec Macky Sall. Moi, je veux vous proposer un contrat social qui créera les conditions qui permettront au Sénégal d'être prospère dans la paix. C'est pourquoi mon projet de société s'appelle Djam ak Xéewal. Macky Sall fitna fitna à ak bekor le indi si Amna am lima yalla defal wax ma diké candidature Macky Sall moko guidé mais xam ngeen ni xajuma ci gannaaw Macky Sall yalla ko jox rew mi waye duma moromam xajuma ci gannaawam kon duma nangu man ku gëm seigne touba gëm diiné gëm seigne touba do jaay mukk sa ngor kon ñoñu di wax wax ju amul solo la mais dina ko leral fi ngeen xam ko li ëpp solo japp leen ñu nun xam na nu bu baax no jëme rew mi rew mi dana doon rew jamm rew mo xam ni kenn du foyontoo rew mo xam ni kenn du fi jaay doole rew mo xam ni daanu senegal yeb daanu gis seen bop ci rew mi rew mo xam ni ñi ndaw ñi daan ci gis seen bop dana jël liggéey métier lay jël di len ko jox jangal len ngeen nap waye duma maye jën lu su fekke ni dafa don lo xamni manul ñak waye gouvernement bo xamni da nga bëgg toroxal sa oskan ya-, yaay def defin go xamni au lieu que nga wuté len liggéey au lieu que nga fexé xalé yi bañ dem si geej gi au lieu que nga fexé xalé yi bañ dem si désert bi ngay jël juróomi junni yu ngott yooyu di leen ko séddale kooku toroxal sa réew la kon Sénégal yàlla may na ko ay wërsëg wërsëg woowu dama gi bëgg yéen ñëpp ngeen gis seen bopp jot na nag lépp loo xam ni alal la si réew bi alal jooju ñépp gis seen bopp yamuma foofu bépp gox-goxaan boo xam ni moom daf ko fàtte woon ba gox-goxaan boobu amul dara man danaa jël gox-goxaan boobu jox ko cinq cent millions ba un milliard cinq cent ay institution yooyu nga xam ni daf ko teg pour fee fooy réew mi jël ay xaritam jël ay partisan jël ay militant dugal fa institution yooyu yëpp danaa ko supprimer conseil économique social et environnemental a Moufi solo supprimer le haut conseil des territorial à fi de supprimer la commission nationale du dialogue social à fi de danaa ko supprimer alal je dis, danaa ko jël jox ko ndaw le contrat pétrolier Dana wo waxtan ak sunu partenaires yi pour que ñu tok waxtanar ci contrat yi fexé ba Sénégal gis bopam ci bir contrat yi mais lolu su amé ba paré damay jël alal ju takku jox ndaw ñi mom joxu leen alal lum leen baye ak ay bor la leen bayel dama leen wax Sénégal fi ñu tollu

loolu wane na ni moom dafa tayle réew mi buum googu nga xam ne daf ko jël yeew ko ci baatu réew mi tayle ka man danaa dindi buum gi ba réew mi moom boppam ba Sénégal yëpp gëm seen bopp diine ji diine ji danaa ko jël yëkkati ko ba sa kaw jàppale ko ndax ñu amul lu dul diine ji danaa taxawal benn ministère bu mag boo xam ni ministère de souveraineté lay doon mooy yor mbirum diine ji mooy toppatoo daara yi lu tax ñoo jàppale école yi te duñu jàppale daara yi jaaduwul danaa fexe ba si biir daara yi ñu fee jàng-jàng métier suñ fi jàngee métier ku jàng alxuraan jàng xam-xam ñëw génn am sa métier soo liggéeyee daa doon ko am njariñ pour sa société danaa jàppale jigéen ñi bu baax baax te bëgg jëmale kanam gox-goxaan yépp fu amul dara danaa fexe lu bëri am fa seet leen télé président Macky Sall nan la télé maa ngi bàyyi ndox Dakar ñetti fan a ngi nii amul ndox ku fekkee ni moom si juróom benn at mënul faj soxla senegaal ba Sénégal amul ba ma amul ndox ñetti fan koku lu gën dese na dem abal nu wa Touba wa Mbacké wa jurbel président Macky Sall man naa ko wax fi ni defalu len dara képp ko xamni ni képp koo daf kay gërëm wax dëgg Yalla dafa bëgg lu ko neex rek ana hôpital ba mu diggoon wa Touba seng ya ñi ngay naw tay Touba benn pepp ndox su fa tombee rek Touba fépp taa amul assainissement yoon yu doyul tey Touba war nañ fi créer ay bërëbu liggéeyukaay yoo xam ni ndaw ñi daan si war man liggéey jigéen ñi war nañu créer ay unité de transformation yoo xam ni daan si mën liggéey loolu yëpp amul si Touba amul si Mbàkke amul si Jurbel dama bëgg jàpp ni ni ma bëgg defare senegaal danaa jiital si defar boobu dëkk yu am solo yoo xam ni dëkk yooyu dara amu fi Touba mën naa wax lu fi am lu nekk président lay Wade la xoolal ñoom ban fi toogee ba tey ban fi toge ba tay suma juumul ñaari forage lañ fi def setal ña jitu lu mu tuti tuti dem lañ fi fukki forage ak lu top ta nak man yalla mayna ma am xam-xam bo xam ni dana tax ñu lijjanti problème ndoxu Touba bi banu bokke ci rassemblement des mourid Tawfiqul adi dañ fi indi ay italien yo xamni nee nañu ndox mu neex mu doy am na Touba Bobo kon nañu jël ndox moomu indi ko Touba reprendre réseau bi soo ko defee daa jëmale kanam li nga xam ni mooy ndoxu Touba kon li si des mooy wax leen ni leen ni ma tàllal loxo sama réew tàllal sama loxo réew mi si lan laa ko sukkandiku bu njëkk bi mooy dama xam ni réew mi jafe-jafe yi bëri na ñaareel bi dama xam ni yorin wi rafetul ñetteel bi dama xam ni moom ba fi nu toll gisuma mu jublu si noo xam ni ëllëg dana defar réew mi su yoree réew mi yéen ñëpp da ngeen di gën sonn kon nanu fexe ba mu jóge fi ba pare yàlla dimbali ma ba ma xam ni état di fonctionner doon naa fukki atu ministère yor naa ministère fukki at yor ministère yu bëri yoo xam ni mën na tax ma xam réew nan lay doxee moo tax dama tàllal sama loxo rek commencé wax lan mooy faj réew mi dëb dëb ba fii ma toll amul kenn koo xam ni mën na ma démentir si li ma wax ni réew mi nii la noo faje soxla réew mi ba yàlla dimbali ma valeur yi nga xam ni société sénégalaise daf ko gëm valeur yooyu lu bëri nekk ci man lu may def ngor laa see jiito ak jom lu may def lan laa see jiital mooy yërmande yërmande te bëgg dimbale lu may def li nekk lan laa see jiite mooy bëgg Sénégal waaye nag bëgg naa si yéen amu leen moroom. merci beaucoup président. maa ngi sant. jërëjëf. waa Kër Sëñ Touba yi nekk ci tribune bi suma tuddee juum.